mbokk yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne rek di jàkkaarloog yéen mbokk yi ni ñu koy defee di dalal ay kilifa waaye tey mbokk yi ñu dalal kilifa goo xamante ne naam dootuñu leen koo présenté ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne saa su ne mi ngi koy taxawee ci réew mi ndimbal aka a faj li nga xamante ni moo di aajo doomu aadama yi Serigne na Al Quran la askan wi xam ko bu baax a baax a baax ci xam-xam waaye ba tey ñu seet si ko dalal ko fas yéenee waxtaan ak moom ci li nga xamante ne saa su rek mi ngi ci dimbali askan wi ci seen i jafe-jafe ko noonu nag tey laa fas yéene seqaat ak moom li nga xamante ne waxtaan comme ñu koy defee saa su ne cheikh bi xam naa ñu nuy la bàyyi la nga ndek mbokk internet yi ñu waxtaan ci li nga xamante ne bëgg nañ askan wi jëriñu ci saa su ne waaw jërëjëf sëñ Ilaas basmalatan tajaxalanillahu biha jaarallah wa mulasiman li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ama baad ayyuhal muslimun wal muslimat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu gannaaw ba ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu ngi julli seenante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen dalal bu baax di am mbégte ak kontaante seen tànk yi tabarakallah mm-hmm. dara euh, taxu ko jóg lu euh, yaatal xam-xam mm-hmm. waaw tabarkalla euh, doomu aadama yi nga xam ni itam suñu borom teg leen ay nattoo ko jafe-jafe te bëgg ku leen si taxaw te amaana ñoom ñoo xam am na ñoo xam ne daje ku leen taxaw jafe na lool mm-hmm. kon nag seen tànk yi nga xam ne lépp aw yiw la jug ngir feeñal xam-xam waaw ah, kay lépp loo xam ne itam ah, ñoo ngi fi ñoo fi yëkkati yàlla na suñu borom defal ak dëppoo ak tawfeex bi barkatul Quraan waaw du nuyu kilifa diine kilifa aada di si jiital Cheikh Mahamadul Muntaxa mm-hmm. Euh, di ñaanal suñu jàmbar ja suñu wasila ba suñu wajur suñu lépp Cheikh Sidil Muxtaar suñu borom doo la yokk ay leeram tax ñu ci barkeem euh, di ñaanal Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xam ne moo ak fi wutu tamate ko sëkk itam di ko suñu borom doo la ko fi yàgg tamit ko góor ak mboolem euh, kilifa dini xalifa sénéraux yi boobu ñu fenn bismillah Euh, cheikh bi ci kàddu nuyoo yu am solo yi nga xamante ne ubbee nañu ko waaye lépp rek doon euh, nuyoo yu am solo ci askan wi nga xamante ne ñoo ngi bàyyi xel euh, ci dalal bi bëgg nañ dooree ko rek li nga xamante ne moo di waxtaan bi saa su ne mu doon njëriñ ci askan bi waaye tuñu boroom may la ci loo xamante ni doomu aadama boo ci jëflanteel mu daal di sant muy wàllum seet seet nag cër gi nga xamante ne am nga ko ci te doo liggéeyal nit te seetoo ay mbiram. waaw loolu lu wér la loolu nga wax lu wér la doomu bi ñu mën a jàmbat. Hmm. aju jooju itam lu mu doon aju joo xam ne yàpp luñ koy yab yàpp itam ñu saytu ko mm-hmm. ndax ndax doomu aadama yi euh, ni ñuy wutee si ay tur euh, noonu la ñuy wutee si lépp ndax euh, te tam may laay biir may laay laay biir ñi nga xam ñu ngi bàyyi xel te ñu ngi seetaan seet dafa doon loo xam ne dafa bokk si doomu aadama ndax nit ki soo toogee ab diir danga war a gestu xoolaat sa jëmm waaw xoolaat sa jëmm mm, moo xam yow war a def ak moo xam ne loo xam ne war nga ko wattandiku ndax loolu dafa doon loo xam ne am solo lool di seet sa jëmm tasiyaat dafa doon loo xam ne itam euh, dafa baax si dafa dafa mënta ñàkk si ab ndax doomu aadama lépp looy mën di lépp looy mën di looy bëgg la gën nga seeti ko noppi rawatina ñi nga xam ne dañuy ay sëriñ la tey watewoo ñaan ndax euh, nit ki mën nga di euh, mën nga ko fas yéene jàppale léegi lam xooloo fa nga war moom jaar foo xam amaan da nga yokk gàllankooram yokk jafe-jafeem ndax loolu dama koy gis léegi nit ma di sàkku ñaan jàmbat ma aajo ma gis ni kii kat mës naa gis mës gis naa mu doon jëflante ak ab sëriñ amaana digal na ko sarax boo xam ne def na ko sarax booba ko gën a lor mm-hmm. moo ko yokk eh, loraange mm-hmm. la ko sabab nag mooy ñàkk seet mm-hmm. waaw ndax léegi nit ki boo masalan looy rek yaa maanaam yaa def loo xamut waaye seet nag suñu borom may nañ si loo xam ne képp ku ko defal da nga xam ne yàlla may na waaw des na la loo xam ne ba nga juddoo si sa ndey ak sa ba léegi kenn nu ko wax des na la seetal ba xamal la seet tolluwaay la passé ak fi nga ak la nga la itam see sarax te bépp loo lépp loo xam ne itam wax nañ la soo ko defee da si gis njëriñ ndax ñun yàlla dafa dogal bañ tollee si jàng dañoo jàngoon dama koy wax faral di wax waxtu nekk ba yàlla dogal ñu toogee xam-xam alhamdulilah rabbil alamin mm, mais naka nga koy déggee ñi di wax naan euh, Serigne Cheikhouna booy koy seetloo boo amee looy nëbb bul jàkkaarloog moom nee ko seetal ndax li muy tudd ci ginnaaw sax dalay jaax maanaam képp koo xam ne seetal naa la seet gi dana ma juróomi minute xam nga nit ki nga yàkkoom di ko wax juróomi minute lu toll si jëmam mm. kooku li ngay bàyyi du bëri waaw am na si yoo xam ne nag dinaa ko gis nit ki te duma ko sañ a tudd ndax suñu borom na si doomu aadama loo xam ne mm. lammin suñu ko tudd waaye nag lépp loo xam ne euh, balaa ñuy commencé dañ la xamal fa nga sa tolluwaay fi nga toll la na la la euh, la nga xam ne dund nga ko si ko jafe-jafe xamal leneen rek lii kat mu la tënk waxtu boo ko da nga lépp looy bëgg si àddina di nga ko am dem sob na yàlla waaw loolu moom alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi koy sant suñu borom seet daal yàlla dañu si def lu loolu euh, day alxuraan te alxuraan xam na ni maa farat naa fi kay mi sayin boobu dara lépp a ngi si biir te ñun suñu lépp alxuraan la waaw loolu moom tabarakallah. macha allah macha mhm. allah cheikh bi ci kàddu yu am solo yooyu ñu doore woon waxtaan bi rek ci wàllum seet waaye leneen li nga xamante ne fi jamono tollu da koy faral di wax saa su ne ndaw lu ne wala nit ku ne war ngaa waajal sa bopp ci li nga xamante ne moo di wàllum kaaraange ndax fi jamono toll doy na war kaaraange nag da nga liggéeyal doomu aadama loo xamante ne da koy muccal aar ko wàllum kaaraange sëriñ cheikh. waaw aajo yooyu ñu ko tudd léegi di wàllum euh, kaaraange mhm. dafa doon loo xam ne waxtu mu nit ko rek mhm. ak teewaat ak kontaante ndax damay xam ne kii kat ku farru la ku bëgg boppam ndax euh, jamono ji toll na foo xam ne képp koo xam ne bëgg nga mucc wutal kaaraange dafa doon loo xam ni dafa am solo ñàkk kaaraange yàlla na si yàlla musal masalan boo gisoon mbooloo moo xam ne dañoo ànd wala bërëb boo xam ne dañ liggéey mbooloo dafa tasee euh, masalan dara war faa xew wala itam maanaam jafe-jafe war na faa am kasa gën a ñàkk kaaraange moom mooy loru ndax dégg nga wax li ma lay wax ndax des na liggéey euh, euh, lu ñuy wax wokkub di ak ndomba waaw wokkub lam boobu daanaka ñu bëri mën nañ ko sama waxtaan mën naa nekk ndomba mën na nekk sax lamub xaalis mën na nekk itam ab jaaro waaye képp koo xam ne yàlla dogal nga takk nga ko mboolem àdduna bu ñu jugoon di la jëmal du si li si a yéem itam yemul dong si aar sa jëmm wokkub lam boo xasee ba ko wa maalihi wa waladihi wa sawjihi yemul rek si yemul dong si aar sa jëmm masalan boo dégg ma ne ma lii sa alal da koy sàmmale bu fekkee da ngay ab société wala nga am magasin wala a yilif rek dana nga sàmm di wokk bilam boobu wala di xii di sax njaboot da leen di sàmm sa say doom mën nañu a takk gàllaaj soo ko sa sa ak say say soxna waaw ndax xam-xam boobu dara xam-xam maanaam euh, alxuraan da lépp tëriwul daal lépp nga si biir waaw moom bu mu jaaxal kenn suñu borom mi nga xam ni moom moo tëriwul dara moo moo dañ kumpa moo dañ kumpa lépp rek moo moo ko wax waaw maa farat naa fi daami shayin waaw maa farat na fi la mi seen téere bi lépp a ngi si béboo dara lépp lay saafara itam loolu nag alhamdulilah bi ñu ngi suñu borom a xamal te itam euh, wakkulam googu itam maa ngi euh, la toll ku ne am ko ndomb la goo xam ne képp ko kam si mboolem euh, li dara moo xam bët lam na cat lu mu a doon waaw bu dee itam am na lu ñu liggéey lu ñuy wax masalan lu ñu liggéey si jajjukuta jajjukuta boo ko déggee teen boo xam ni masalan dañ ko doon gas gas gas ba ndox bay bàyyi ko fa la fa jot a génnee am na lu ñu si liggéey loo xam ne euh, sangal la goo xam ne képp ko sangoo mm-hmm. lu mu fekk sa yaram dara dañ mm-hmm. moo xam ay liggéey la ay mbir yu bon yoo xam ne dañ ay tooke yu mën doon mm-hmm. dana daal di dañ si saasa lay daal di dañ loolu moom euh, li nga xamante ni moo di kaaraange leneen li nga xamante ne day bokk ci dundam di ubbi ay buntam muy wàllum ubbeeku ubbeeku it yaa ngi ciy def liggéey bu am solo ginnaaw bi nga aaree doomu aadama waaw loolu nag euh, la ndax alxuraan dama ni ma ko waxee léegi rek bawut dara te lépp nga si biir te itam euh, gisuma lu ko gën a efficace gisuma itam lu ko gën a gaaw léeg-léeg ñi xamut ak ñi nga dafa jax lañ baade seenum xel ma dafa yeex wala fa nang loolu maa ngi jéglu sax si wax gi ma wax waaye ñàkk xam alxuraan la rek ak ñàkk ak ku ëmpale ko léeg-léeg itam boo may def waxtaan bi ma àllu ni man képp koo yëkkati sanga jox la ko masala ni la sangoo ko ñetti fan nga sangoo benn fan bu njëkk bi yëgoo daal si sa jëmm bu neexee sa sang googee bul ko continuer te xam ne du la ndax dama gëm ni nit ki soo soo ko liggéey daal jox ko ko su ko laalee rek si sensé rek war naa yëg ni kat yaramam am na lu mu laal mm-hmm. euh, loolu boo xool si garabi tubaab bi rek garab yi tubaab bi garabi tubaab bi boo ko naan ne lu ñaar fukki minutes mm-hmm. da nga daal di yëg ni am nga loo naan mm-hmm. noonu nag laa la ko gëmee si lii nga xam moom la ñu yàlla nattoo waaw man du ma joxe sangat gopp fukki fan du ma joxe sangat gopp juróomi fan waaw léegi-léegi nit woo ma ne ma man de am na sëriñ bi ma jëflanteel moo ma jox ma sang ñaar fan wala itam sangatu ay juróom-ñaari fan wala moom dama gëm ni nit la la war a jëriñ mhm. soo ko laalee sa sens da nga daal da nga daal di gis njëriñ la mhm. waaw loolu moom alhamdulilahi rabbil alamin te ubbee ko itam dafa doon loo xam dafa am solo si ndaw mhm. luy wut waaw ndax nit ki soo ubbee ko rek da nga di am ta doo sond waaw ubbee ko daal dafa doon loo xam ne daa am solo dafa mat a xantewoo waaw dafa mat a xantu si lu mën a doon moo xam commerçant bi moo xam lu mën a doon rek wala itam koo xam da nga yor ab place boo xam ne dafa am gàllankoor dafa yàqu ba mën a masala mënatoo jaay suñu wooyee bu soob yàlla dis na ko def loo xam ne bu dee jaay rek la bëgg dana ko def bu soob yàlla wala koo xam itam masalan dafa nekk si ab bërëb boo xam ne euh, waa dëkk bañ ko woon ginnaaw mm-hmm. dana la liggéey loo xam ne lépp loo bëgg sa ko boobu da nga ko am waaw loolu lépp xam-xam yoo xam ne mag ñi dañ ko dañ ko doon liggéey te mag ñi itam am ñoo xam ne lépp lu ñu xamoon xamal nañ leen ko mm-hmm. waaw loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. am na liggéey bu ñu liggéey itam boo xam ne euh, si alxuraan lañ ko liggéey am na yu ñu koy boole si ay sunguf masalan kooku maanaam ku xam ne dafa tëju woon ba kenn lijjantati ko si àddina bis boo ko laalee dana yëkkati ko dana ubbeeku man si ñi ma gën a sawar xam mooy ñan ñi nga xam dañu amoon te amatuñu dañu amoon ba daal di ñàkk man si ñoom laa gën a sawar ba yàq ñàkk yaakaar ci boppam ba ñu ma woowee dama daal di am si euh, dama daal di ñewental hmm. waaw ndax masala ni ñuy la doomu aadama yu bëri yaakaar sa ginnaaw te yàlla deful si yow ndeysaan loo mën a joxe hmm. loolu dafay métti sama xol hmm. si ñooñu laa gën a sawar ñooñu moom si sens laa leen di waaw sangat moom euh, wax dëgg yàlla yàlla si loo xam ne képp ku ñu ko defal boo ko laalee da nga xam ne suñu borom bind na te may nag ndax euh, du périmé du yàqu du larax du jeex nam bàyyeekoon fa suñu borom jaar si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nii noonu la mel amaana nag euh, demee ni wuute na ak itam nañu si demee ak am nañu si yàlla may itam ñoo xam ne bu ñu si laar rek suñu borom defale lañ bëgg waaye nag yàlla defal ko man damaa teel a wat alxuraan ni ma ko fàtte wax waxtu nekk ba may am juróom-ñeent at laa wat alxuraan ba pare jàngale ko jàngale ko fukki at nga xam ne ñi ma jàngal euh, bopp rek lim bi mënu ko wàññi nga xam ne alxuraan ko dafa saf sama sama sama jëmm te ni may gis nii nag lu ma xat xat xat xat xat du ma xëy suba ba ngoon te jàngu ñaar fukki isbu loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin te alxuraan dafa am fayda ah, bu fekkee da nga ko jàppee euh, masalan loo jumtukaay boo xam ne rek rek si am soxla dem jëfandikoo si a fayda si àdduna daa amut soo ko babee mu bara mhm. waaw da nga koy fexee dundal ba pare di ko dundee waaye fas yéene di dundal alxuraan te doo ko dundal loolu mën na si am dara la nga bëgg loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin am solo yi nga xamante ni ba tey ñu ngi ko séq ak moom ci waxtaan waaye yéen ñi bëgg jox ko ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi leneen li nga xamante ni askan wi dañu koy faral di wax saa su ne nga indi si solution boo xamante ni euh, askan wi ñu ngi ci sant di ci gis seen bopp bu baax a baax a baax mu di jafe-jafe kàttan gi nga xamante ni yor nga ko ci garabu néew kàttan gi góor ñu di dund waaw euh, kii hélas euh, mbirum kattan nag moom yàlla dafa dogal dañ see yaatal suñu gëstu lool ndax dama gis ne jamono ji daa yaatu lool mm. daanaka sax ay ndaw sax ñoo dañu dañu ko jàmbat mm-hmm. waaye sama kër gii doo xëy suba a ngoon te gisoo fi magum juróom-ñett fukki at mm. te amaana loolu leen fi andi mm-hmm. ndax man euh, garab gi nga xam ne dinaa ko joxe si wàllu kattan xam ne moom si ko am fukki xam ne moom si ko am 90 ans xam mi mu sixième comme 70 ans xam mi mu sixième comme 60 ans bis boo ko laalee billaahi wal Qur'aan da xam njëriñ la sa sens sa bis ba bu fekkee itam koo xam ne dafa am a jafe-jafe kattan te fekk amaana rab moo ko téye wala xam ne dañ ko takk wala wala dafa am benn feebar bu a ndax ma du ma làmbatu dara lépp lu may def damay leer naññ ma soo saa soobu moo tax du ma dugg lu ma du am résultat nit ki su ma woowoon ma seete ko jëmma ba noppi euh, gis ay gàllankoor ba ma gis ko mënu ma ko taxaw dama naan mënu ma laa ñaan waruma ma du ma laamatu lu a am mm, résultat lu a am ndam gën a lu a am si àddina moo ma gën a ay millions résultat moo ma gën a ay millions waaye mbirum kattan am na si ñoo xam ne euh, ñëpp si ñelewa danaan la man de siñ bi sama jaxasoo sama soxna damay gaaw a àgg léeg-léeg itam am na ñoo xam dañu lay la man dara man jox sama soxna dara du bàyyi ko si man du dara du mën a génn sama jëmm kon xam nga fii daa am wuute mhm. ñii la mooy gaaw a yegg la ñuy du ñii duñ génne duñu egg ah, euh, te awra euh, masalan euh, mbirum awra dafa dafa loo xam ne am na tënk bu si ma ngi daal tënk di baatu di da dii di da dii di da dii mooy dij dij mhm. ji dëgër diis loolu mooy melo awra melo awra ma ngi daan tënke mhm. waaye koo xam ne awraam dafa ñàkk jot des na xam la sabab ndax dégg nga baax li ma lay wax. waaw koo xam ne itam euh, bu am na ñoo xam ne ba ñu xam ne day jóg. waaye daanaka day daal di wàccaat mm. am na ñoo xam ne itam danañ tëdd ak seen soxna si benn lal. lu mat ñaari weer du yëngu sax ñu tëdd ak loolu day am. Mm-hmm. yooyu yëpp itam dañ koy dañ xool ba xam la ka sabab ñu taxaw la si te yàlla tax. Mm-hmm. incha allahu taala mm-hmm. waaw ndax euh, kër yi yëngatu bëri na lool. Euh, ndeysaan léeg-léeg ak genn góor woo a ndeysaan ne ah si mbir yi boo si jàpput soxna si daan dem ndax nit bi mënuma si dara mu ne ko ah mu ne ko ah bisu yàlla du dem de fexeel la am si garab gi wala ma seetu ji mujj ba xam la ka sabab ma doog laa taxaw waaye alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi si sant suñu borom bu baax a baax ndax garab gi ngay gis ni garab gi nga gis nii si kattan rek lay dox garab gi amul garab gu gën si wàllu kattan te nekkul garab goo xam ne gu weex la waaw nekkul garab gu weex nekkul garab goo xam ne itam day maanaam eh, dafa am effet secondaire day day def sa dara sa jëmm ndax man gépp garab goo xam ne yor naa fii ñu koy naan ay meññate yi jëf ni ko laay defar lu si Euh, nebedaay jar man sax bëgguma leer ndax bu yàgg damay leer samay secret ndax gone yi daanaka moom duñ jàng ba pare bëgg kéemaan la daal garab gi daal kattan rek ka tax a jóg moom magum juróom ñett fukkat bu ko naanoon tey jii dana sawar caw cawte goo xam ne maanaam képp ku mu jëfanteel xam sedd bu dee garab gi itam sunguf sii nag mooy garab gu yéeme gu jafe lool goo xam ne am ko yombul nag mënu ma si am lu bëri moom it dara gënu ko efficace kattan garab gii su ma koy jox amus ndaw laa la si jox daanaka la nga si naan tuuti lay doon waaye soo ko naanee mm-hmm. ah képp koo xam ne day eh, wóolu nga sa bopp bul naan garab gi mm-hmm. waxtu képp kooku si xal da dana doy war lool mm-hmm. moom garab gii doon na garab goo xam ne itam day raxas deretu nit maam day fermenter a sa yaram raxas deret ba mu set rempli ko am na suñoo xam ne seen seen ndox masalan day day faj ndax am na ñoo xam ne seen ndox day feebul masalan day manqué wala njaan ya day manqué ba nga xam ne sos doom du yomb ndax di nga wax li may wax am na ñoo xam ne si ndox du doy day néew kii ne dana si dimbali moom garab gii dafa yéeme yéeme goo xam ne wax na xamante naa garab gii yéem na ma lool garab gii waaw moom moom tabaarkal la waaw waaw moom kay wax dëgg yàlla tabaarkal la gis nga mbuus si ndaw si ma la si jox gis nga mbuus yi nii la toll mbuus yi nga gis nii day mën ko naan ñaar fukki fan mbuus si ndaw si rek daa yéeme moom garab gii mbuus yi nga gis nii mën nga ko naan ñaar fukki fan ndax sekkal la rek loolu bu mu jëm kenn alxuraan daal dabu dara maa farat naa fi daami shay'in babu dara te wana nazilu min alqur'ani ma huwa sifaun wa rahma loolu alxuraan la te ñun yàlla dañoo dañoo def dañoo def ñi ëpp gëstukat ñu man duma ba dara su ma euh, ma toog nii ñu ne am na ku da ko may si mbirum nangam dinaa taal sama oto dem euh, tarbi yu ko am xam-xam boobee ndax euh, yàlla dogal na ku ma xam xam ni ñu ngi ma tudde sëñ Sidi Muxtaar bi ma gën a jow moom uf tudd ma tudde ma boppam ba demee ba toll si matalal jàng mu jël ma dénk ma sëñ Saliou ma dem xel kom jàng alxuraan Daaru Salaam daaree diis waaw jamono ñu ko dafa toll foo xam ne booy wax da ngay leeral ndax bëri na ñiy woote woo bërëb wala ñuy mbubboo bërëb te amaana sax amaana euh, moo nekkoon juriñ ja ñu ngi ñaan suñu borom loolu ko yërmande si kawam euh, ku wax si Abdou Lahad Dieng itam la ma fa sëñ Saliou dénkoon moom doon jàngal alxuraan waaye li may fi ma jëm mooy gëstu xam-xam koo xam ni ab chrétien la ñu ko a wax alaaji Latir Thiam moom yàlla na yàlla yërëm ko te seddal ay yaxam góor googu doon na góor gu yéemewul goo xam ne kéemtaan la mayug yàlla la amoon te itam ab chrétien la bokkuñu ngir mm-hmm. waaye dama ñu ne xam mbirum sunguf ak reen ak xas ak yasaaju xam itam mbirum weñ weñ nga xam-xam weñ dafa am am na ndax bëri na yi yoo xam si weñ rek lañ ko liggéey boo gisee élewi xànjar ji mm-hmm. lii élewi xànjar la lii nga gis ni élewi xànjar la mm-hmm. waaw am na yu bëree bëri yu si liggéey ay noob yu bëri yu mën a doon waaw yu bëri yu si yu si kii léegi gurgur gi itam euh, dëkk ba mu dëkkoon Ndofane la la tudd mu nga sa ginnaaw euh, boo passé Mbour balaa ngay diggante Mbour ak Joal fa la nekk ma déggoon ni yàlla da ko may si loolu lii ma la wax léegi dafa maa jaral ma dem jege ji ko dafa lu mat parce que juróom ñaar weer wallahi laxansi bi di ko si moom xam-xam nga xam ni moom fa nekkoon am néeg la boo xam ni dara waru ko amul soxna si àdduna si dundam lépp musta am soxna mm-hmm. fi mu ne nii ku ñu takk xala xala ëllëg ji ngay gis nii si laa def li may def su ma ko defee ba li may def si may def ba noppi si sens lay daal tekkee ko bu soobee yàlla waaw même waaw kay bisimilah mhm. waaw ku takk xala daal xala mhm. ak foo mën a nekk si bi jur ngay jur sax ñëw jur ngay ñëw naam sutura sutura jigéen rek def li may def bu soobee yàlla waaw euh, kàttan googu nga xamante ne joxe nga ci yaatal bu ama am solo waaye aussi nit ñi ñu ngi ci gis seen bopp di ci euh, doxe kàddu ngërëm bu baax a baax a baax ndax dama koy faral di wax saa su ne solution la ci biir néegu sëy yi ndax jafe-jafe yu bëri euh, néew kàttan bokk na ci li koy indi waaye indi nga solution bi ci leneen li nga xamante ni laataa ñuy tàggoo dinañ ci taxaw tuuti mu di wàllum noob noob gi nga xamante ni da nga koy faral di wax ñàkkaa dégg wala xam diggante kan ak kan la nga boole leen ci noob waaw nopp moom mën naa ni dafay dem aju joo xam ni daanaka mën naa ni su duggee sama nopp sax dama daa di wax ni saafaraw na ndax loolu dafa na loo xam ne ni ko ne am sa domaine ndax dégg nga baax li may wax loolu moom ñëpp xamee nañ ma ko mbirum nopp ëllëgee xànjar ji nga gis nii euh, si liggéey nopp goo xam ni su ma bindee xaatim bi ba dagg ko ba def li may def ba jël ànd bi ba takk suuf mi tàng mhm. sa sens la daal répondre ndax da nga da ngeen di faral di dégg léeg-léeg may wax noonu bu 24 heures am boo xam ne bu dee soxna soo xam dafa nekk borom këram si biir kër gi masalan nit ki am euh, borom këram nekk si kër gi waaye sëy ba neexut wala itam euh, góor gi nga xam dafa yor soxnaam si kër gi waaye mënu ko tënk hmm. déggalu ko te itam mënu ko def li dëgg dara ba mu ko hmm. la mu bëgg si moom kooku la ma siy def du mat vingt-quatre heures mu daal hmm. ba dee koo xam ne itam dafa soxna su bëgg masalan bëgg ko fa soxna soo ma woowee nag balaa ma balaa ma saa def lenn balaa ma saa jël benn engagement fa sagoo ko lépp laaj ndax la moo tax ma soxna laa bëgg si moom ah, ah, danaa la waat danaa la waatloo sa digg ndax li may def kat dafa doon loo xam ne su ma ba def ko mm-hmm. man mi ma ko dindi euh, nit ki la loolu dama koy si wattandiku a baax a baax moo tax léeg-léeg nit ki dana woo téléphone ndeysaan am na ñoo xam ne sax dañuy dañuy dañuy dañuy daal di sax coupé mm-hmm. xanaa daan na wax suñu bi daa mën a laaj te fekk la may sax ma koy laaj ndax soo ma ku a bëgg nga liggéeyal ma si wàllu nopp dama naan la danga ko bëgg sa soxna la loolu lépp dana ko laaj ndax sa soxna la mm. ndax euh, loolu moo la tax jug si moom nag laa lay laaj boo ne ma ah dama ko bëgg fa soxna da ta yàlla tax mm. mu ne ko mën la waatal sa diggante ak sa borom mm. soo xasee waat sa diggante sa borom nag moom man defal ngay wërgu du caaxaan yaag sa la man boobaa sama jaan wàcc na loolu sabab loolu ndax lii may def kat su ba def noppi man mi ko defee mënatuma ko dindi te kenn mënatu ko dindi nag waaw loolu nañ ko xam a mm-hmm. nopp moom dafa doon aajo xam ni mm-hmm. dugg sama nopp bi mukk tasaafaruwut ay yooyu nit du ma ko jàmbal ñaari yoon loolu nag ndimbal suñu borom la ndax euh, dafa doon mbir moo xam ni amaana moom dama ko fawee dama ko si laa jàngee si la dama ko fawee daal si daara ja mm-hmm. mbirum nopp waaw loolu moom tabaarakalla xamee mu si nag nit ku weex ak nit ku ñuul waaw ji jàpp naa si nit ku nekk si wàllu nopp mm-hmm. waaw ndax bëri na ay nit ñi nasaraan yu ma daan booleel ñoo xam ne si wàllu nopp la ñu ma ak ñoom ndax euh, am na sama jigéen joo xam ne bëgguma sax di leer yooyu noonu mm-hmm. bëri na ñu may boole si wàllu yu demee noonu nii ay say jaxasoo si wàllu waaw man leen si taxaw loolu moom dafa na aj joo xam ne àdduna bi ñëpp xam nañu ma si waaw loolu nag alhamdulilah suñu koy sant suñu borom rek lépp suñu borom la waaw tabarakallah mhm. euh, cheikh bi ci kàddu yu am solo yooyu yaakaar naa ne waxtaan bi am na solo loolu ci bideel bi nga gis <laughs> uh-huh. euh, dana faj euh, fukki jàngoro juróom-ñeent bokkut hmm. moom bideel bii ndoxum siti nu mu mën a def sa yaram boo ñu woyee des na saafaraal hmm. insha allahu waaw bi moom bideel bi hmm. bu dee émorite itam dañ moo xam interne bi la moo xam externe bi am na ñoo xam ne fi mu ne ndeysaan euh, euh, danaan am émérite duñ ko xam waaye képp koo xam ne yaa ngi am émérite xamu ne am am na la euh, dal na la maa ngi li may wax ne soo ko déggee da xam ne am nga ko wala amoo ko képp koo xam ne day toog biir bi di juux di yuuxu di yuuxu di daal gurur gurur waxtu nekk wala même ay ballonnement yu bëri am na ñoo xam fi ne mënuñu teem jàpp suñu jàppoon daanaka duñ toog lu mat cinq minutes daanaka ta ngelawuñu waaw loolu lépp euh, émiri da moo koy def mm-hmm. ak doomu aadama yi nga xam ne euh, duñu lekk waaye foo leen fekk seen biir di daan dégg loolu am ak itam ngay lekk ba pare mu yeex a rees mm-hmm. wala itam masalan koo xam ne da nga xëy añ da nga xëy ndikk añ reer xëya suba ndikk añ reer te doo dem toilette mm-hmm. xamal ne am nga émiri bi si biir waaw bu yàggee nag euh, day def manifester dem ba génn si sa buntu demakaay toilette bi mm-hmm. fi mu ne am nañu yoo xam bu na euh, amee ajo toilette bu demee dañuy sonn lool léeg-léeg sax am ñoo day dem ba day gën a deret am picc boo xam day gën a deret mm-hmm. am na ñoo xam ne bu ñu mm-hmm. seen baaram bi seen loxo bi dafa doon jàngoro xam ni a yar yar mët a bay bayal bépp mu jàmmal amale kattan am na jigéen ñoo xam ne itam émérite moo leen tey am doom waaye képp ku mu gaar teral ma bi une la moom émérite waaw garab gi nga gis nii euh, garab gi nga gis nii gis nga ni mu dara du ko baax si émérite kaas nga kenaan suba ngoon xooj ko si biir un litre kaas wit suba ngoon moom garab gi mhm. waaw bu dee bi nga xam daa nekk si biir am na garab goo xam ne tam génnut garabu ndox sid la moom laa am na ñu ma koy boole jox la ko mhm. bu dee émérite bi nga xam ne dafa nekk ëpp ci nekk si bunt bi mhm. am na gu ma goo xam ne karité nga koy boole li nga si diw moom it ko calmer duñ ko dañ koy faj ba mu jeex sa yaram ndax lépp feebar rek te ku gëm ni alxuraan ma wax euh, wala nasir min alxuraan wa rahma mm-hmm. ma wàcc alxuraan si yéen jullit yi ma ma teg ko fii euh, alxuraan moom ma ko teg taal baa xam ne alxuraan boobu dara si àddina alxuraan tudd na lépp mm-hmm. bépp garab boo gis ma def ko xaas wala ba kay wala bay ma kay sunguf mm-hmm. alxuraan moom ma ko teg taal ma def fa si alxuraan laa laa tegtaloo waaw dégg nga baax li ma lay wax waaye euh, garab gi dafa doon garab goo xam ne ni ma la ko waxee léegi rek sol si daa bëri te man du joxe garab gu am euh, maanaam masal gu am effet effet secondaire ba gu weex li nga gis fii lu mu doon lii jar la lii nga gis ni nebedaay la li nga gis ni xorompale la ak yeneen yi nga xam ne tam suñu ma ko tudd mm-hmm. laaj waaw masalan euh, te képp koo xam ne jox na la garab gi te gisu gisut photo bi xam ne du garab suñu saan alxuraan waaw te itam garab gi itam dékku garab goo xam ne gu ne gu naqari la wala gu weex képp ku la ko jox itam mu weex du sama garab ndax am na am na ñoo xam mën nañu fee jël lu bari dem xot taf yi def si yeneen taf di ko jox ñeneen waaye gis nga garab gi nii xoolal ku ne mën na ko jëfandikoo moo xam jigéen ju wér dara loo xam ne nekk na si loo xam ne li loolu du baax waaw ñi dal na ko naan nii hmm. waaye nag neex na neexaay goo hmm. la ki nii garab bu kàttan ngay fi mu ne nii hmm. moom daa neex lool boo ko dee uh, mëq nii mën na nga di continuer rek waaye soo paree day da nga xam ne <laughs> tabarkal la <laughs> waaw ndax xam-xam am de Euh, li ma gën a métti si àdduna itam bokk na ci lenn uh-huh. doomu aadama yi nga xam ne dañoo dem dem dem ba gëmati ba jàpp ne ñaan yàlla da amut ñooñu dama leen a yërëm uh-huh. ñooñu nag lay sabab loolu yi ne dañoo bëri ay jaaruwaay masalan am ay jafe-jafe euh, benn sëriñ ngir sàkk si moom euh, mu gën a yokk seen i seen i njàqare uh-huh. loolu na lu muy am waaye képp koo xam ne jàpp nga ne ñaan yàlla nekkul am maa ngi lay ñaan nga yëkk sa bi nga woo nga xool ab diir da nga xam ne suñu borom may na te xam-xam lu am la loolu man si laay xeex ndax man ba ma dem ba ma dem suñu soxna alxuraan ba léegi euh, musuma xëy si métier musuma xëy jaay dara man si am dara lépp lu may am si adduna si alxuraan la ak séentu te alhamdulilah nag maa ngi yàlla nag ñëw ma kenn ku yàlla bind tabarakallah loolu nag laa bëgg nit ñi xam ko alxuraan dafa boobu dara lépp nga si biir dama bëgg jullit yëpp xam loolu yi képp ku sonn si adduna jàpp naa yow la ak doomu aadama yi nga xam ni tam euh, dañoo nekk bitim réew. waaw a fàtte. Euh, masalan euh, soxla gi lu ma ni green card wala itam ñi nga xam ni dañoo dugal bëgg mu génn maam gàllankoor. Mm-hmm. wala nga xam ni itam dañoo seen kayit dafa jeex ñu dugal ko di ko renouveler masalan am gàllankoor mënut a génnaat. Mm-hmm. wala ñi nga xam ne dañu am foofu problème kayit ma nañ ma woo incha allahu taala ma taxaw leen bu soobee yàlla mm-hmm. daan la xool sa jëmm bu fekkee daal laaj nga génne sa sarax daan la nga génne sarax sikaral lañ lay sikaral bu laaj lu ñu la ñu yónnee ko am na am na si boo xam ne sax du jar ñu lay yónnee ça dépend si nit ndax ñaan dafa doon loo xam ne day aju si jëm ji ki day ñaanal waaye du ceeg nag dama yor benn secret boo xam ne rek nit ki su ma woy ne kii laa bëgg ma bindal ko ko mudu boobu ne ma kii laa bëgg ma defal ko ko Moustapha boobu ku nekk ak mbiram la ko yor fa ngay jaar moo tax lépp lu ma tax xam xam naa ko tabarakallah ak euh, góor ñi nga xam dañoo nekk bitim réew ba fi soxna ba bàyyi fi soxna ginnaaw nañu ñàkk nañu ñàkk seen kër yi uroon yu bëri na de te yàlla dogal am na boo xam ne euh, ba ma xasee ba def ba noppi masalan boo amoon sa soxna sa si moom nga am xel yaaru waaw wala nga am soxna bàyyi ko ginnaaw ba pare mu nekk si leneen danaa ko tënk loo xam ne kenn du ko mën a jariñoo li ñuy wax wattal loolu mag ñi dañ ca liggéey bu njëkk mag ñi jigéen ju ndaw joo xam ne ab jàng am na téere bu ñu ko daan takkal boo xam ne li fekk demul kër kenn du ko jariñoo léeg-léeg sax jigéen dana sëyi si kër euh, euh, man de masal dem sëyi nekk borom kilomètre semaine bi yàlla wala mu ëpp ko jëkk ji du mën a àgg si kawam dara a jug si takk na téere boo xam téere boobu noonu yi li fekk tekku ko du jàppandi nga xam ni góor gi a yaakaar ñu ko takk xala a yaakaar ni xam loolu dana am da nga gis góor mu sant ak soxna daanaka am na nu mu demee léegi téere bu bi na dama koy liggéey am na loo xam ne du téere fi ma tollu liggéey ko bu dee kuy sëy wala ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew amuñu xel yaar ndax ndeysaan loolu daf daf may métti lool génn ni mu méttee bàyyi njaboot bàyyi sa famille lépp luy am ba dem di loolu loolu moo a amut moo tax loolu moom ku ma si woo bu la neexee bul fay daal loo ma jox baax na loolu dama si fayee képp ku am sa soxna mu tëla bëgg bëgg ñu bëgg woo ma ma def la ko ngir yàlla te yàlla tax soo jox dara sax naa la ko liggéeyal ak euh, ñi nga xam itam dañoo nekk bitim réew yor fa seenu njaboot euh, yor fa seenu njaboot waaye mënuñu leen a tënk masalan xam nga foofa Europe ak Sénégal bokkuñu bitim réew foofa soo xasee ba majeur rek wala ba nga am 18 ans rek daanaka mën ngaa daal di moom sa bopp lépp loo bëgg doxee loolu la xam nga ko doxee sa a dara mm-hmm. waaw léegi nag loolu nag képp ko xam faa yor njaboot mu aw si lu la lu la sopp ak si lu la neex sama woy des na su taxaw waaw kon nag euh, waxtaan waa ngi bëgg gudd sax te jot gi ñàkk na lool kon dañuy santaat suñu borom bu baax di ñaan suñu borom doolee def si réew mu jàmm waaw kay bisimilah. macha allah ci kàddu yu am solo yi nga xamante ne seqoon nañu ko ak moom waxtaan lépp rek doon njëriñ ci askan wi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel ni rek la ko dalalee woon Serigne Cheikhouna Al Khourane waaye yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone yaa suuf écran bi kontaan bu baax a baax a baax bi di leen jot dage ci beneen numéro